duñ ko def puisque Sénégal baaxawul xeex lépp loo gis moom Sénégal dañ ko war a waxtaane mais diggante Ndar ba Dakar benn bopp lañu xeex baaxul suñu biir mais affaire boobu ñun képp kuy mool rafetlu woo ko xeex baaxul parce que xeex lu ne mën na si juddu événement Mauritanie Sénégal lu mel ne kenn di woon yooyu nag foog ñu di ko éviter du moytu xeex

xam nga ñaar dafa am si àdduna te ñaar ñoo dañ leen war a fonk mooy baykat bi ak mool bi baykat bi bëri na lu muy soxlaa dañ ko ko war a jox bi parce que moo xam li muy daj si naaj bi deuxième bi mool bi dafa am loo xam ne da koy yittewoo si géej mool mooy fay boppam xam nga mool mooy fay boppam li muy fayee boppam mooy génne xaalisam dem jënd masinam mool mooy génne xaalisam liggéey gaalam mool mooy génne xaalisam ferese pour dem géej mooy jël tempsam si géej gi pour indilu askan wi dunde léegi kooku nga koy daggaloo ay licence licence pour lan la ah marine Sénégal bi marine bi gis nga géej ju lu ñuy jàng ci maawu école géej lu ñuy dugg ci biir pratique nga tarbiyu ko depuis nga nekk xale ba ni ngay nekkee mag nga tarbiyu ko mën a xam ci géej lan la ban gaal nga mas a gis réer marine marine bee ko andi gaal gu fi réer gu ne mool ñoo koy andi kon licence yi pour lan la gaal gu fi réer mool moo koy andi mool mii tëmb mooy xam mool mam moolam moroomu moolam bi fi mu gëtee xam ñaata kilomètre la bu dee cinquante kilomètres lañ nekkoon mu dambu mu dem dabu ji ko soixante-dix

xana dafa am fanen fu mu jëm fu bokkul si mool moli mool yi gis seen bop ci geej gisuñ suñu bop ah waaw waaw ma nga gis sama téléphone borom kër waaw waaw gis na ko wa ah, ah loolu mom dañ koy ñaawlu rek parce que rafetul nappkat ye ki yëpp benn la dañ rafeto rek mo gën parce que ñom ñëpp benn lañ soti see dess la rek lu ñaaw mën naa ñàkk daal si digënté boobu daal waaw ñu rafeto rek nguur gi dox ci tamit ndoy ka si jàmm parce que ñu bokk da war ñoo ñaawoo waruñoo ñaawoo waaw Macky Sall jàppale mool yi moo jàppale leen dimbali leen mu ngi leen di jàppale gaa loolu moom kenn waxatu ko mu ngi dimbali si mbasi ni suñu borom kër yi mais gis nga géej gi ni fu mu toll ni mu méttee dara amu fi dëgër na mitti na wala si doo ngaa am beneen jën amu fi gis nga géej gi tey gaal yi ni ñu demee noonu lañ ñëwaatee ben jën amu na dafa ginnax mu jàppale mool yi dimbali leen si quai quai de pêche bu Yoff bi tamit ñu gën see jàppa waaw bu ko defé jën bu lambaté sax ñu mëna am fuñ ko sambu foar bu ñu jënt jëni bu lambé ñu mën ko fa jënd bu bu ñàkkee ñu gënë waat parce que ñu jigéen dañ bëgg a liggéey mais bu jëni lambé sax do am foko ko parce que amuñu sambu foar lool non xam nga côté côté licence yoyu ndar la am comme gaa ndar yi ñoom dañuy jëgë ndar di dem Mauritanie ñuy demander licence entre ndar à Mauritanie mais bu dé côté Dakar duñ def loolu ñun ñun dañuy gàllu ci lu ñu dañuy dem teeraat mais ñun li ñu doon jàllale si côté gouvernement bi bëgg nañu affaire moteur yi mu jàppale ñu si mu gën a mu gën a yomb parce que moteur toll na foo xam ne fi mu toll nii jënd ko yombatul un moteur un million cinq cent quatre-vingt mille loolu mool mënu ko jënd plus sa consommation kër loolu boo gisee nag léegi événement yi ñaawteef yi xaw a bari ku mënu la am li nga bëgg foog nga def loo bëggul def état nak mo wara couvrir côté pes jàppale len wañi moteur wañi essence mool mën am audace pour liggéey mën tok kërëm tranquille géré ak njabootam. ñun dañ am suñu fëla bopp ak suñu fayday bopp ko xamul ki nga doon kaneen moo lay wax ki nga doon wala mu teg yeneen loo xamul ci sa kaw nga di ko dund par force mais ñun dañ xam liñ doon lébu ku ko dégg ku ne xam nga ko gendar ak lébu duñu ñu benn de lébu li muy bañ gendaar bañu ko. non man en tant que pêcheur en tant que rafetlu ma ko parce que li tax rafetlu ma ko mooy ñun ay mool lañ dañuy dem géej ginnaaw yàlla amuñu lu dul géej gi mais licence de pêche yoo xam ne nii Mauritanie la jëm ñu koy laaj Mauritanie la ñuy liggéey pour man jarul coo jarul xuloo jarul xeex. parce que licence de pêche yi da ngay def demande demande bi ngay def xamoo ndax dañ lay may xamoo ndax duñ la may mais bu ñu la mayee donte 1000 licence lañ la may 1000 licence matatewul matalewul pêcheurs yi nekk Saint-Louis yëpp donc bu ñu ko doon séddale si biir Saint-Louis dina am ñu am dina am ñu amul àddina mooy dexe noonu mais li gënoon rafet mooy bu dee jot nañ ko nañu xool dispersing bi nan lañ koy defee ku sa wërsëg nekk nga jàppe ne da nga war a am ku sa wërsëg nekkul aussi nga jappé ne warulo am mais prochaine fois bu yeneen ñëwé yalla mëna dogal sa wërsëg nekk si mun nga am bu boba donc man sama point de vue lool la quoi jarul won kulo jarul won di xé mais lepp waxtaan la rek ba trouver consensus ni licence foofu fi moom musu fi am de ma ko fi dégg dégg fi ni fi mom ñi fi nekk machallah ay Ablaye Diouf ñoy mom fi mom ñi fi nekk machallah waaw mu ngi liggéey fii moom macha allah moom ah waw moom macha allah moom jërëjëf. may mbokk yi nekk saint li may leen l'essence mooy nañu dal nañu ànd ak dal puisque loo gis xeex du ko lijjanti Macky Sall Sénégal gépp a bokk nañu toog ñu dal waxtaan ak ak waa dëkk bi ñu wut solution toog ak état waxtaan moom mais xeex fajul dara ñaar dina am bu ñu xeexee force de bi dinañ gaañu wala public bi gaañu. te ku si gaañu tamit da nga perte temps te ñun ay borom njaboot lañu war ñoo dépassé fu ñuy xeexee même force de l'ordre ay responsable lañu ñun moo ay responsable lañu mais bu ñu xeexee am blessure perte ma am bon nag loolu nañ ko éviter ñu bàyyi xeex toog waxtaan waxtaan mooy doxalam réew man loolu laaj laa lancé sama mbokki gendar yi te di leen jéggalu di leen masawu si histoire bi. ñu waxtaan dal ndànk discrètement lo xamné li état ñu leen tek loxo seen licence ñuy demander état jappal leen ci jox leen ko si njëkkaa teraanga loolu la lu daal lancé. le may lancé wa gendari ñu gëm seen bop lu jitu lu jitu affaireu état ci geej ñu xol ñun suñu mam la lañ doon dund ci geej bañ fekk ka fi ñun. dem gëm seen bop yaakar seen doole di dem di dund seen ñax nañ yëm ci geej ak ndax. géeju ndar bu baaxul ñu jàll ñëw sunu boor bi fekk yàlla mënu boole tëj géej gi yëpp ay jàmbaar lañu nag ay liggéeykat dëgg lañu message semai lancé état yooyu mooy mu xool doxinam si wàllu géej na xool seen ñoom nañ xool seen doxalin si wàllu géej machine seer na seer goo xam ne bii amul benn mool bu dem mën kaa jënd kontaan konte si banque bi ngay dem di dóor dàqe ak ñoom même gaal nga wër ko liggéey gaaw yi ngay gis nii àgg na mille gi ñuy liggéey ni da ngay jaay sa benn machine dóor ko si banque bi ñu àll xaalis nga jënd si bant jënd liggéey après demaat dugalaat xaalis si banque bi ñu génnee la machine ngay dóor dàqe ak ñoom noonu ngay jàppoo sa àddina ba kañ bon dëkku géej moom problème du si ñàkk parce que ñun ñuy wax ak yow nii des fois dañuy am problème ba fi may wax ak yow nii dèjà tey jii moo li xëyoon nañ dem géej uti ji loo xam ne nii pour lu ñu yóbbu seen kër lu ñu suturloo moo leen taxoon dem mais dem nañu ñëw gisuñu ku ñu jaay gisuñu ku jënd ñu taxaw ne Yoff am na quai de boo xam ne nii dimbali moo li moo ko tax a jóg quai de bi am na ay représentant mais représentant moo li si quai de bi lan mooy seen njariñ quai de bi lañ mooy njariñam parce que quai bu ñu ko defee dañu ko def pour bu mool yi demee géej ba ñëw bu ñuy jaay ñu dem jaayee ji foofu Si nous avons lu gens, naxari seen représentants nous avons foofu ñu taxaw mais nous sentons, nous gisuñu donc un problème la ñun mool ne bi